maa ngi leen nuyu yéen ñëpp kenn ku ne ci turam ak santam maa ngi tudd Awa Guèye di médiatrice ci Dimbourada Bramo maa ngi def audio bi ci wax ak yéen ci DPCM bi génn le 12 mars 2021 ci zone rouge bi nee nañ ci DPCM bi dañ ciy wax ci wàllum dem ak dëkk bi nee nañ dañuy tere ñay dem ci bi commune ak beneen sauf ñoo xam ni dañoo war a génn pour dem liggéeyi wala nga war a dem faju ji wala loo xam dafa am solo trop nee na dañuy tere bépp dem ngay dem di seeti keneen mu nekk sa mbokk wala sa xarit nee nañ à partir de 22h ba 5h du matin dañuy tere ñépp ñi ciy génn sauf ñoo xam ni dañuy dem liggéey yi wala nga dem faju ji wala loo xam dafa am solo trop te mënta ñàkk heure yooyu nag heure heure yooyu lañ di wax couvre-feu nee nañ dañuy tere tamit ñay dem ci benn région ak beneen sauf ñoo xam ni dañoo war a dem liggéey yi wala dañoo war a dem faju ji wala loo xam ni dafa am solo trop te mënta ñàkk ci wàllu restaurant yi neena nañ restaurant yi a ñuy jaay crème glace yi ak baar yi ak leneen ak leneen nee na dañuy ubbi seulement loo xam ni danga koy jënd ñu yóbbul la ko à partir de cinq heures ba vingt deux heures baar yi ak yu nuroog baar yi te amul togg to ñuy togg wala magasin yoo xam ni dañuy jaay yi ñuy naan nee nañ ñooñu da leen di ubbi seulement loo xam ni dangay ñëw jënd rek ñu yóbbul la ko à partir de cinq ba 18h nee na dañuy tere ñuy lekk boo xam ni dangaa ñëw rekk jënd doo ko lekk ci si saasa sur place ou bien fi ko fi jege moom da ngay jënd rek daal di yóbbu. te ñi ñu jot a wax yépp restaurant yeeg gélateria yépp nee nañ nangu ne livraison à domicile. ci wàllum culture bi nag nee nañ dañoo suspendre pour l'instant lépp loo xam ni nga dem di xool tableau yi ak musée yi ak institut yoo xam ni dañuy wone wàllum culture bi nee nañ bibliothèque yi dinañ ubbi seulement pour nga dem di joxe wala ngay dem di retirer lépp matériel boo xam ni donc ko donc woon bu ma ni prénoté mooy loo xam ni dangaa juloon rendez-vous activité commerciale yi nag ci loolu dañ ci wax magasin yi ak supermarché yi nee nañ lépp loo xam ni day jaay loo xam ni amul nécessaire yooyu yëpp dañuy tëj nee nañ dinañ ubbi yooyu dinañ ubbi ñooy marché yoo xam ni wala supermarché yoo xam ni dañuy jaay lekk ak lépp loo xam ni ci mba wàllu mbay bi la ak fleur yi nee nañ dinañ ubbi tamit pharmacie parapharmacie ak centre yoo xam ni dañuy jaay ay service sanitaire yi ak lépp loo xam ni dañuy jaay wàllum lekk bi ak produit agricole yi fleur yi taaba yi agence yoo xam ni mënoo wax ci wàllum muy pompe funèbre yi foo xam ni néew yi dañ leen dañ leen fay defar ak lavanderie yi ak euh, librairie yi ak fépp koo xam ni jay jaay tamit ay livre ak journal yi activité yoo xam ni nag day dem ci wàllum nit yi comme par exemple ñiy defar bopp yi ñuy coiffeuse yi ak coiffeur yi ñiy defar barbe yi wala ñëpp ñoo xam ni mooy defar sa kanam muy salon yi salon de coiffure yeeg salon de euh, defar sa barbe yi yooyu yëpp dañuy tëj ci wàllum jàngalekaay jàngalekaay yi nag nee nañ dañuy tëj fépp boo xam ni mooy crèche yi ak école élé maternelle yi dañuy tëj école primaire yi école secondaire yi supérieure yi université yi seule activité boo xam ni dañ koy def mooy jàngale yoo xam ni à distance lañ koy defee mais du tere fépp fu activité yoo xam ne nag dañuy laaj nit ci nit ki ci boppam mu ñëw comme genre mu utiliser laboratoire yi nangu nañ ko ak élèves yoo xam ni dañoo am benn gàllankoor ci wàllum yaram bi ak walla dañoo soxla ay loo xam ni dafa xaw a spécial. ci wàllum sport bi nee nañ nangu ne ngay def activité boo xam ni ci yëngalukaay yaram yi la mu nekk individuel après nga def distance boo xam ni un mètre lay tolloo après nga sol masque. te bu mu war a warut a sore sa dëkkuwaay tamit nee nañ nangu ni nga def activité sportive individuelle ci foo xam ni ci medd mi la ba pare nga tenir distance boo xam ni deux mètres lay doon ba pare mu nekk ci sa biir commune nee dañuy suspendre pour l'instant activité boo xam ni ci wàllum yëngalukaay yaram la mu nekk sport de base même buñ koy def foo xam ne ci mbedd la ak centre yi ak cercle sportif yi tamit nee dañuy tëj fépp foo xam mooy salle de gymnastique yi piscine yi ak centre de bien yi ak centre termine yi nee nañ mesure yoo xam ni nag mooy mesure yoo xam ni pour fagaru la mooy boo génnee ci sa biir kër nga sol tout temps masque bi mooy damay fagaru te aar naa sama bopp tamit. neneen tam di leen di fàttaliku chaque fois boo nekkee ci biir centre bi dangay sol masque et c'est obligatoire ci wetu arrêt yi arrêt car yi muy arrêt car bus yi ba pare ci wetu école yi. nee nañ wax chaque fois boo nekkee ci mbedd nga def distance yow ak beneen nit mu tolloog un mètre bu fekkee nag dangay def activité sportive dina wax ci distance yow ak keneen nit bi ngeen def ko deux mètres. nee nañ leen di laaj tamit ci fagaru yooyu ngay faral di raxas sa loxo wala ngay utiliser gel gel yi ñuy def di utiliser tamit. nee nañ dañuy tere mbooloo ba pare fépp foo gis nga gis ni dafa bari nit. nga daal di changer sa yoon maa ngi leen di di jaajëfal bu baax ba beneen yoon.